asalaamaaleykum internet Rafah TV amati nañ mbégte ak baneex ginnaaw bi ñu leen nuyoo si yar leen ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér eh, ñu ngi fii ci jumaayu Touba ngir dundal ànd ko ak mbokki taalibe yi ak murid yi ak jullit yi eh, bis bi nga xam ne mooy bisub sa safar bis bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul xëy na woon Mbàkke Baari wutali ci tukkeem bi ngir taxawal lislaam yëkkati drapeau lislaam ba dootul daanooti ngir liggéeyal li sangam ba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bis boobu nag moo agsi tey mooy bis bi ñu doon waaj ay weer doon ko waaj ay ayu bis ñu agsi ci tey nag mbooleem foo xam ne taalibe nekk na fa ci biir xew bi ak bitim xew ñëw nga fii ci dëkk bu sell bi di Touba ngir dundal fi bisub Seexul Xaddim boobu mu ne woon képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu agsee nag ma ci santale yàlla ci jaamu yàlla ak berde li ci dale gin giléem ba ci ginaar kon nag bis boobu moo ak si tey ñu fas yéene dikk ci jumaa ji saafonteeg mbokki taalibe yi ak murid yi ñu fesal seen mbégte mi nga xam ne moom la am ci bisub Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon sama cameraman nag may daal di topp ma daal di dékk sama micro taalibe yi Serigne Touba yi ak jullit yi ñu fesal seen cofeel ci Serigne bi ak seen mbégte kon ñu dem bis bi nañuy sant rek wax dëgg fa yàlla ndax màggal gi moom lépp tawfeex la daal waaw sëñ Mountakha woote na ko boo xoolee taalibe ak ni ñëwee nii ñëpp wuyu si nañ ko ci jàmm daal waaw duñ def lu dul sant lu dul sant rek daal. waaw dañoo yëgaat tawféex ak yokkute rek yokkute goo xam ni maanaam foo ko natt weesu noo ndax tey guddi màggal ku xool jumaa ji fi mu toll nii kenn amul fu mu taxaw barke sëñ Touba lépp sëñ Touba rek moo ko waral. Eh, nan nga yëgee liggéey sëriñ bu mag bi nga xam ne def waaw liggéey moom luñ ci